gàmm gi nee na gàmm gii. ba mu koy defee ca dëkk ba. ba mu koy defee ca ba. ca bayaalu hôtel Rex ba. ca ba. daan teew. ba ci promenade Thiès waa. waa. ba ni mu ñibbisee fii ci Baxdaad. sëñ Bas dañuy wéet mu naan ma. tegal ma waa kër seen njàng seen njàng mi. te sëñ bas lu néew lu muy seetaan internet la. te la. ma ku ni sëñ xaadim mi. am na liggéey boo xam ni. buñ ko liggéeyul woon. ndaw ñi mën nañoo këfu dem feneen. ndax sëriñ si. léeg-léeg seen jot du leen may. yitte ji sëñ xaarim di def. ak coono bi mu ciy daj. ak surveillance bi. ak orientation bi. yombatul ci jamono. waaye moom buy discours guddi gi sax. waaye moom buy discours guddi xaalu. dee leen julli lay wax. ne dee leen jàpp ne jaamu leen yàlla bu ñuy gis seen jootaay yow ak Cheikh Mamadou Bassir ne yaakaar day yokku ndax àdduna dafay dox te il faut am ñu yor flambeau bi kon nag loo sëñ Bass nee na mi ngi lay nuyu lu bëree bëri nee na gàmmu gee xat rek waaye lu weesu gàmm rek nee bu ngeen ko nosee nee mu yeesal ngan gi. kon kii mu tànn nii yabal ko nee na maa yabalal ku ko ëpp doole ci man ndax moom mii fu ma nekkul mën na ma faa wuutu ci lu bari ay taxawaayam ci manit ñëpp ko xam gàmmu gii bañ ko dooree nee na mag sëñ Ahmed Saloum mii noo ko ànd nee na place yi ni mu ko limee noonee rek la demee nee du yem foofee kat ndax buñ gamo ba ci ëlëk sa non lay topaté ci sama discours top ko ca waxin wa lu ca mata yok ak lu ca mata defar kon bu nuy wut ab xarit neena Ahmed Saloum mate na ko sëkk di sant Cheikh Mamadou basir Abdou Khadir bu baax neena wahnan wax nañ ko sank neena mi. barki dem la ma man mi nee na mu ne ma mbub mii mu sol nee na Cheikh Bass ne ko mooy sa mbubu mu gàmmu. nee wëlbatikuwaat. yablewaat fi ay teraanga yaat. yablewaat fi ay teraanga yaat. joxaat ko ko moom mii. joxaat ko ko moom mii. mu topp si waat bis bi. kon loolu day mel ni. waxuma ni dara des na ci de. waaye nag nee ëpp na nag. bis bi sax ci boppam. daa amoon yéene.